salaamaaleykum salaamaaleykum monde entier salaamaaleykum Sénégal ñëwaat ci rek si biir liggéey bi waaw di leen xam ne combat Pokola ak ak Liss Ndiago jàll na mais combat bu ni neexee amul fen fen fen waxoon naa leen combat boobu mooy meilleur combat de année te li ma bala ngeen ko xam sax ngeen seetaanaat ko bu ngeen ko seetaanaat di ngeen xam ne arbitre bi jël na si risque ba pare mujj na ko mujj na ko suude waat si biir risque bi jox na jox jox Pokola victoire par avertissement. mais avant loolu ay kaawo yi si am ak jël yi yëpp arbitre bi da ko aligné parce que avant muy dem jël bi am nee na soufflé na kon mën nañ ko kaa nangul mais loolu nag moom risque bi si ne bu làmb ji yàq woon wala mu demee beneen côté lu ne mën na see am mais nag arbitre se remettre terrain ndokk ba ko gaa yëpp yëgee ñemee ko continuer waat combat bi tey bis bi bis bu ngandee nii musul am si arène national xanaa si soq ak ak ak ak Franc la mus feese noonu à part loolu bis bu mu nii amul fenn mu ñëwaat si Mor Kankang ak ak ak ak Tapha Mbeur hop hop hop hop booy bool bool bi nand na c'est fini mënatuluñ ko dara ndax xoolal douze douze victoire nga am ko benn défaite non non neexul ba neexul mais combat mënu koo passé Sa Thiès onzième combat si la daanu mbër yu bëri seen onzième combat aguñu fa daanu tey Mor Kanka nga ci douze combats yu mu gagné benn défaite te Mor Kanka avec manière la gagné patriote bu mag bi patriote bu mag bi nag li ko war lépp def na ko mais tey xàmmewuñ ko ndax cappul soosul quoi mais Roland njaago ak Louis ak ak Kee ak Pokola def nañ si arène nationale loo xamante ni Louis Ndiago ak ak ak Pokola waaw. waaw dañoo nekk si biir géew bi arbitre ne par Louis njaago de Roland kii Pokola dirigé mais saa yu dirigé Roland Ndiago day koos benn arrière saa yu dirigé mu koos benn arrière bi mu àggee da koo miine da mu deen gauche ñëw mu mu yan ko manteau si manteau bi taj. sa waay Pokola kaaw arbitre ne soufflé na avant muy fii la ko ko yéen taj wëpp wëpp wëpp Pokola daanu na si si ren Lewis Ndiago daanu na ba pare jug ñaari yoon mënut a jug ndax kuubu daal parce que bi muy tourne rek la ko sawaay booy bi jox kuu bi ne woon moo gën a euh, Lewis Ndiago moo gën a bari loxo moo gën a bar xeex mais Pokola saa yu la dóoree nga fàttali nga yoroon tey kaawoon na ko dëbu sa waay daanaat ko si biir jéel bi moom it Roland hmm? garde bi no amul garde Pokola naka jeer amul garde mais Pokola ni muy garé mais waroon nañ koo liggéeyaat beneen liggéey chaque jour ma wax leen ko Pokola nañ ñàkk si moom xaalis mu dem jàng xeex am garre parce que loolu mooy yoon Pokola nekkatoo mbër boo xamante ni da ngay maye sa kanam rek di maye sa kanam parce que kurfañ xaju si kanam bala nga koo xam nga màgget soo màggatee day feeñ parce que boxeur boo gis ba màggatee affaire yi day feeñ rien yi mais amul garde da nga naan xaas si suuf mu beese garde bi nga dóor si kaw wop pop bi ñëwee noonu lay dale ñi may encaissé si Pokola la fekk baax dëgg neexul làmb ji ba mu daj képp kuy mbër boo gisee li Pokola di encaissé nga xam ne neexut a encaissé ndool mais Pokola am na leneen lu mu si ne lu mu ñu waxut mais Pokola coup yi moom mënoo koy encaissé te ñëw parce que yaram benn la boo si dóor bi métti ndax Laurent saa yu ko Pokola dóoree liis saa yu ko Pokola doore mu daw génn waxal benn coup la koy ñam mu daw génn mais Laurent liis saa yu saa yu jekkoo Pokola Pokola day kaawoo dox génn waaye du mus a daw xoolal yooyu te yëppay dal encaissé yëppay dal mujj na sax di yëngal bopp bi naa ko dóor si mais garde baa mais bu garde bi baaxee dëgg Roland kanamam daggut Liss kanamam daggut te encaissé na ay coups mais garde baa baax parce que bu loxo bi ñëw day fekk mu res mais bu sa garde baaxul bu loxo bi ñëw day dal complètement Pokola bu yurloo bopp bi buñ ko si nee taj da séen ni bopp bi yoxoo mu leer ne coup bi dal na waaw mu des Eumeu Sène signature bu ngandee ngi fi muy baala gay ak Tapha Tine dinaa xam ba xam Balla Gaye Tapha Tine koy bàyyi xel wala bàyyiwu ko xel léegi si kanam rek ñu joxe leen signature bi ma xool Eumeu Sène ma xool ama Sène ba pare xool sa Sa Thiès xool Balla Gaye xool Tapha Tine différence de taille bi tey feeñ na mais mais mënul feeñ quoi parce que jotuñu jàppante gars yi dañoo bagaar lépp rek parce que lépp si xeex bi la yem parce que amul benn yoon bu ñu ko bëree parce que ñoom ñaar dañoo guxonte woon parce que seen ñëw bi gis nga ni méttee avant ñuy ñëw bi seen supporters yi dajee xeex nañ ba oto yu bëri toj ci mais di ko wu ñëpp nag di ko ziar te xam ne làmb jee mel noonu tey jii dafa fees ba am ñoo xam dugguñu sax si stade bi te loolu mosul am waaw mais liggéey làmb rek moo ko waral mais xool leen làmb ji ni mu toll rek nga bëgg a booy sànku mais ña ñañ jàppale waat ñu gën koo organiser gën a waat yoon bi te xam ne foog ree la ndax Pokola ak ak Laurent bi ñàkkee ñoom ñaar ñoo ak Liis ñoom ñaar ñoo àndaat def Pokola jàppante bëggante te mën nañ fee jaar sax ba nekkante ay xarit dootuñu bërante moo tax ko ku si si ndax war ngaa xoolaat li ngay xeex mooy lan parce que sport la rek ndax bu jeexee jeex na mais mais première bi bu bu fekkoon ci digg géew bi jeex na waxal arbitre bi mu soufflé bi Pokola maamee si kawam benn yoon la ko touché benn uppercut mu wàcc si kaw wàcc kaawoo dëbb bu doon maali ngoom ah, moom ran ñàkkoon na sax ba félicité sa waay waaw liis ñàkkoon na sax ba félicité sa mais nag li ko xañ ak bi mooy arbitre bi waxaat dañuy bëri waat arbitre risque bu rëy la jël non loolu kenn du ko def parce que boo demee ba ñaari mbëri Pokola looy looy looy looy looy. nu ngu nañ defet nu kenn nangu na ne daan na ko tribune bi yóoxu na léegi jeex na soo bisal joxe ko victoire bi mu dem pour lan muy nangu naan daan nañ ko ah loolu moo gën a yomb mais tey boo ko bisaatoon boo bi dóor ko mu daanu tey ji yow yaa koy yóbbu coow li loolu mën na indi lu ne waaw. ñaari jël la ngi si ba pare arbitre bi validé wul ñaari jël yëpp te loolu erreur la mun na yàq suñ làmb tey jii mën nga kaa dem xool vaar di nga xam koy gañe waxal. waaw bu fekkee ne yow da ngaa soufflé ba pare ñuy doog a dem kon waroo xaar ñu doo waaw. Pokola dafa daw mu daal di tëdd. daa dugg appel ko gauche mu teene gauche ñëw mu remise ko droite. si manto la dal fii bu la fi perte nga équilibre booy daanu doo xam lu la daan gis nga bi mu daanoo côté jug na jug mënut a jug même bi mu jugee d' accord na ne daanu na mais arbitre bee ko d' accord ne kon damaa soufflé avant ngay daanu moom tamit ran di ko génne di sa jàpp ko di ko waaj a dëbb naaxe di ko ko yen muy arrière di arrière ba si yàgg lon ko caxabal bi wéeru ko at bi ne ko si ginnaaw saako yi nga ko daane waat jël bële lay suude rek mais jël am na jël bële lay suude rek mais jël am na biñ demaatee ba temps bi jeex nag si la xoolee avertissement yi kële ëppale avertissement mu jox ko yi waaw waaw kon di tàggatoo rek di waxaat gaa yi maa ngi ñëwaat tàggatoo bi des na parce que combat yëpp nii lañ leen ko mën a joxe. parce que bu mag bi moom. walaay du sensé maa ngi woon ci terrain bi mbokk yi maa ngi leen koy wax dugal ci mikaay dina bari trop mais li ma am kenn amu ko man maa am ball Gaye 2 mu jël temps di seetaan combat Pokola Balde ak liis njaago maa ci am réaction abu Abou Ndiass ci DG Baba Jaxal le de Liss njaago ñoom ñëpp waa jàmm gën ñëpp am naa leen jox nañ seen opinion waaye tamit waa kër Pokola bi Pokola dóoree Liss Ndiago mu daanu am naa seen réaction dara du leen ci raw muy suba muy ginnaaw suba xaar leen ko bis bu duggee di ngeen gis image yu ngeen mosul gis fenn li ma ciy wax mooy Liss Ndiago Pokola moo tax ma ne la Liss dama ne la bu dee amul doole bu koy Pokola jàpp di ko daan nañ dem vaar xooli loolu laa waxoon Liss bu dee amul doole bu koy Pokola jàpp di ko daan waaye bis bu amee doole bu ñëwee nag problème day am parce que xale bi mën naa bëri man chaque jour lu may wax day tungam seede dem leen seete waat xale bi naa bëri mën naa xeex te am noo fit làmb jaa ngi ni moo tax chaque jour dama leen di wax ne bu leen ne diwa man diw kenn mënul kenn làmb fekk jàppoon ni duma ko daan ko mënoo parce que combat bi ñu yaakaar ne bu ko Pokola Balde jàppee duma ko ba mu bëgg a dee mu daan ko mais nag làmb noon la Pokola Balde félicitation yow lañ jox ndam par avertissement Liss trois Pokola 2 kon félicitation Pokola Balde Liss nag bu dee da ngaa contesté bi la Pokola dóoree nga daanu arbitre bi dafa àtte woon bi nga arrière caxabal ko mu daanu ar bi dafa àtte woon bu dee da ngaa contesté am nga droit dem def recours waaye mbokk yi pour l'instant lis Ndiago moo daan Boy Paul moo daan Sangomar moo daan Rendi seega moo daan sénéral eh, eh, Kayre moo daan caatu Rëbës moo daan Ardo hmm? moo daan xale ba nu mu tuddati Naaru Sogaas tey jii dolli na ci lim bi Pokola Balde bu dee fàtte naa bëriwul kon dañ koy félicité waat bu ba dañ koy dañ koy encouragé waat bu baax a baax a baax moom Liss Ndiago ginnaaw defet bii nga jógee nga xam ne par avertissement nga ko amee n'est pas de mérité li nga def li nga war a def yëpp def nga ko ci combat bi xeex nga bëri nga tey bett nga amateur yu bëri yu bëri parce que dañu yaakaar ne bu la waa ji jàppee daan la ñu ñëw ci Pokola Balde doo ko tàggoo Pokola mbokk na ko làmb bàyyiwaat xel dof la dof wérut wérul dóoral ba muy bëgg a dee faalewu la kuy mu encaissé ñii tey bu ko tapet encaissé woon wala koo xamante bi ni yaay may ma ñeex a ko encaissé won na ginnaaw Pokola Baldé daw génn stade bi lànk ne du waat bu ko tapet encaissé woon daanu na bu ko tapet encaissé woon joxe na combat bi ñu daan ko kon mbokk yi nañ félicité waat Pokola Baldé bu baax ginnaaw ndam li mu am première combat dafa daan deuxième combat am Gris bu Malika daan ko mu dóor booy molomp mu daanu ah mu dóor am ca jàmm gën mu daanu mu doon daam daam sugeer ca parcelle mu daanu hmm? daan serpent daan bu laal daan gàkku numéro de daan papakat numéro de tey boo dee xool ku ko daan ki nga xamante bi nii mooy bébé guy gi ak ki nga xamante bi nii mooy ah giri bu malika mbokk yi làmb jaa ngi noonu félicitation Pokola Balde macha allah ndam li yàlla na la jik parce que ndam du tuuti yow lañ jox ndam dof la comme li ma leen di wax chaque jour mbaam la yëgul fuy metti félicitation Tapha Tine ak Balla Gaye 2 waxante bi gis ngeen ko ñu ngi ci état de forme yu wow koŋ ah hmm?